xam ne doon néew doole mm-hmm. rawatina sa mm-hmm. kon ñu ñuy sëgg mm-hmm. xëy na ñi seen loxo jot seen ginnaaw man gis ñi seen loxo jot seen ginnaaw ndax lu mu fa yor lu ne yàlla la ko jox te yàlla mi la jox dafa am ñum la boole ngir nga mën a jox ñooña kon nag lii nekk na ci jëf yi nga xam ne jëf yi gën a rafet la ndax wut glace dem santaane xool ñi ko yittewoo soxla ko nga jox leen ko te sëñ Tuubaa rek tax ah loolu yaakaar naa ne nga dem kon nag ñu tàllal ñi leen ànd ak liggéey bi waaye ah, ñu ngi nii yàlla yi daal lan ànd ak liggéey bi. góor yàlla yi leen ànd ak liggéey bi ah. beneen oto baa ngi nii day daal duy fees del del daal glace waaw ak bii nii desati benn oto buy ñu benn benn oto bi mi ngi ñëw muy ñetti oto tey ñetti oto yi lan yore yi waaw liggéey sëñ Tuubaa ñu wax ko mu tànqamlu ci wala mu ci daw deuxième moom sëñ Bada Diop pësteef nii man chaque jour ma wax ko ni ko man Bada bi yow bi ngay jóge sagata di ñëw Bada nga tuddoon waaye bi nga ñëwee ba Touba ci nga liggéey ba pësteef dab la ci xamoo fi ne daanaka ku la tudde pësteef sëñ Tuubaa la tudde pësteef waaw kon loolu dañ la ci yàlla may la ci fan gudd loolu ànd ak wér-gu-yaram ku bëgg lu baax nga kat ku bëgg lu baax nga loo ko woo ci liggéeyal Sëñ daanaka doo ko wax waxaat dat sion xam glace glace glace

addiya Sëriñ Tuubaa lañ koy joxe ñëw leen jël ñëw leen jël ñëw leen jël ak xol bu sedd ah ak lépp luñ ci suñ borom fayee ñu leen koy ñaanal ñu bokk ak ñun barke Cheikhul waaye lii daw na yaram lool daw na yaram lool sëñ bi liggéeyal lu baax liggéeyal nit liggéeyal lu baax daal sëñ bi jafewut waaw def lu baax daal jëfewut def lu baax daal jëfewut barke Sëñ Tuubaa def lu baax daal jëfewut waaw gars yi dañ dañ koy jël di rek ñaanal ñaan goo xamante ni daal ñu ngi ñaan kattan Sëñ Tuubaa yéen ñi nga xamante ni yéen lan bokkal liggéey bi suñu borom taxaw leen yokku leen fanu ak euh, koom-koom barke Cheikhul Khadim kontaan nañ bu wér nga ne liggéey bi fan la tàmbalee dama bëgg nga wax ko bu ko defee ñi xamul cosaan li ñu xam ñu xam cosaan li waaw liggéey glace bi waaw ci Seydina sëñ Afe Diaw mii ci la tàmbalee. Seydina sëñ Afe Diaw jëwriñ. la tàmbalee waaw nan la si moom. danoo toog genn bëccëg moom. waaw ñu ne koor gi de tàng na waaye tàngaay bi de am na ñoo xamante ne soo demee galaas sax mënuñu koo am. waaw. mu ne ma looy wax ni ma ne ko barke sëñ Fall ndeysaan ne ku demoon mhm. ba ngoon lu xeetoo galaas yëpp duñ ko am ndeysaan barke Cheikhul Khadim bu taw ba ci yàgg xol bi jeex tàkk waaw mu laam poosam daj ñetti junni jox ma ni ma seetal loo def moom kan moom kan moom kan moom sëñ Afe Diaw moom sëñ Afe Diaw waaw da doola ba nekk ca soirée ba sëñ Afe Diaw ngi nii koo xamul nga xool ko mi ngi nii sëñ Afe ngi nii waaw kon liggéey galaas bi moom la ba waaw kay dugg su ko wooyee ni ko kaay mi ñu dugal la daggal la biir fu mu dana ko gërëm kon nit su la wooyee ni la kaay mi bokk def lu baax te bu fas yem foo toog war nga koo mën a gërëm ndeysaan ma jël sama def ñu ànd man mu ni ma du ma dem ma ne ko kon danaa ànd ak chauffeur bi boo ak chauffeur bi ku ñuy wax sëñ Xaadim Mbeng corniche sëñ Modou kon ànd ak moom ñu dem yóbbu ko joxe ko affaire ba jaar yoon lool mu ne ma continuer leen ko saa yoo dikkee laaj ma danaa joxe ba waaw kon su nee sant doon ko gërëm mat na ko dëgg la yàlla ne sant leen ma doon leen nga ma may leen waaw du jeex du xaaj ñun rek ñoo ko moom kon jeex na loolu bëggoon rek waaw ndeysaan amiin amiin amiin amiin amiin amiin ak milliards yu bëree bëri man see gën a yokk liggéey sëñ Touba waaw jaw fara waaw waaw te yàlla dana ko jox incha allah kon jërëjëf jërëjëf sëñ Mbaye jërëjëf